yóbbu woon contre euh, Gris Bordeaux tey moo ko yóbbuwaat contre Boy Niang moom la moom la waaye mu nekk lamb ju doy waat joo xamante ne tey lamb ji mystique dina ko jeexal waaye dooleeg bëri dina ko jeexal idi lamb mystique la waaye tamit dernièrement waaye tamit doole la ak bëri la mbër bu ko ci amul da ngay dem toog tey boo xoolee Balla Gaye sànq mu ko gisee damaa tiit ma daw ndax doole ji ma gis ci moom Balla daa ñuul kuk benn Balla bu doon bëri yi kii nii ba njëkk bi Boy Niang réer na làmb ji ndax gisuñu ko xamuñ fu mu nekk leen daal la ñuy xaar ci moom boo ñaa yegg si na estat xamul fan la war a ngemb ngembawul Pikine ngemboo fa ngemboo fa iri ngemboo fa làmb jee ngi noonu cee làmb tegtal la rek loo gis ci làmb rek ay tegtal la waaye ci kanam tuuti léegi mu leer léegi mu leer idi

Boucher ngi noonu Aziz Ndiaye ngi nii ak Massata Boucher ngi nii tey déggul kenn Aziz ngi ne rek Boucher daa mel ni ko ànd ak mbégte mais Boucher Boucher tey daa ànd ak mbégte Boucher mais Boucher tey loo yëg mais Boucher tey loo yëg Boucher Boucher doole naa yàq Boucher yàq nga doomu Omar Sakho yore Boucher lamb ñee tax wax doole naa yàq

Balla ngi noonu diggéen Balla ngi nii Balla ngi nii diggéen Baye Ndiaye ngi topp ci ginnaaw Balla ngi nii Balla ngi nii Balla ngi nii Balla ngi nii ndeysaan lamb Abi bunu izledi. Sanki gel gel. Bravo.